ak ni mu demee alors kon euh, ñu xool euh, Mouhamadou Makhtar Cissé ministre de l'intérieur moom it il de voter ñu déglu réaction teel ngeen xëy ñëw taxaw fii pour jël jël suma vote wan ko sénégalais yi ma ñëw ma voté si ci Dagana ci école bi nga xam ni fii laa dale fii laa dalee école CI donc muy euh, émotion bu bu bëre mais également di di bànneex ñëw ci sama ay biir mbokk ñëw fi tey ko ministre de l'intérieur nga gisee ne rek xëy na bëgg naa voté Dagana daan fi voté toujours mais tey su ma amoon lu ma gënal dëgg yàlla damay toog dakaar pour mën superviser élection bi foofu ndax foofu la état major national bi nekk mais code électoral bi mayu ma ma voté Dakar donc fii rek laa mën a voté gouverneur rek yëpp mënuñu voté ak mission ñu nekk ñaar mission ñëpp mënuñu voté mais le ministre de l' intérieur boolewuñ ko ci gëstu naa ko ci côté bu nekk pour mën a def loolu ndax euh, tey toogoon Dakar xëy na ma doon gën a baax ci sama liggéey. mais sañu ma bañ a voté donc loolu day appel aussi donc bu may lancé Sénégal yëpp ñu xam ne vote bi lu am solo ndax man Dakar laa jóg laa jóge ñëw ba Dagana voté si war delluwaat léegi donc ça veut dire lu am solo la muy tànn suñu njiitu réew mënu ma wax ni bésu bànneex la war doon mais en tout cas warul doon bésu xeex waaw nit ñi xëy na daanu nekk si pression xëccoo moo mel noonu politique moo mel noonu faut pas être naïf yaakaar ni benn concours de beauté la ou de vertu déedéet il faut muy jaxasoo léeg-léeg du mën a ñàkk mais mën na mën na bañ a àgg fenn ndax lu yàqu nu su dee tabax neex na defaraat mais am na lu yàqu ci diggante yi ak si société bi du du gaaw a neex a defaraat donc ñuy sant yàlla bu nu mayeen ak ci bés bi di jàmm di dalal xelu Sénégal yi nii matériel bi fépp fu mu war a àgg àgg na fa mais léeg-léeg yu manquement yu ndaw du ñàkk comme bureau ba mu voté bi léegi président bi xëy si wu donc il faut nu uti woon benn président intérimaire moo tax mu xaw a yéex tuuti daanaka man maa fa njëkk maa fa njëkk vote dina am feneen dina am feneen mais lépp li nga xam ne su amee rek lu benn manquement suñ ko remonté ñu ci war a taxaw daan ci taxaw dans la journée au niveau local su leen ëppee doole au niveau national au niveau de l'état-major et de la direction générale des élections à Dakar daan ci def saafara bu bu mat sëkk di sant kilifa réew bi yëpp moo xam nu leen di wax kilifa àdduna dina wax kilifa diine surtout ak kilifa aada yi ci seen ñaan ci seen taxaw ak ci seen jàppale di leen ñaan nu continuer ñaan ndax Sénégal soxla na ñaan Sénégal soxla na jàmm te jàmm duñ koy dox di ko wax mais aussi duñ koy duñ ci dawal ñaan ndax nag ñu ngi nekk ci weeru koor occasion la donc ñu xam ni weeru ñaan la weeru jéggale la weeru jàmmoo la mu tombeeg le carême chrétien en plus donc conjonction de facteur boobu du du hasard ci mbiru suñu borom yàlla moo dajale way gëmu réew mi yëpp nekk ci weeru jàmm yàlla donc ci biir loolu war nañu mën a fexe nu dal nu tey nu ñaan ba jàmm am bi jàll ci jàmm yàlla jël ku gën ci réew mi moom xam na ko mu def ko ci xolu Sénégal yi nu voteel kooku ndax nu président bu gën ci réew di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax na ñëpp génn voté si jàmm ak salaam parce que c'est un devoir extrêmement important. di leen di leen sant parce que teel ngeen xëy ñëw taxaw fii pour jël. mi ngi noonu alors donc euh, mu doon ministre de l' intérieur à l' instant même Dagana la demoon daal di euh, voté ji Madjiguène Diouf euh, nous attend à Guédiawaye foofu noonu tamit fi nga xamante ni moom la président Malick Gakou di voté.